dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw xibaar yi dañuy woy a yéen mbokk internet info 221 kàddu yu duppee ci kii di Thierno Bocoum ni ki àjjuma bile mu ne nag gis ñaawlu bu baax a baax doxalin bi nga xamante ni direction générale des des élections daal dina ko def Ousmane Sonko rawatina mandataire boobee nga xam ne moom lañ yónni woon di Ayib Daffé moom nag bu ñu sukkandikoo ci Thierno Bocoum nee na nag DGE dafa war a nekk nekkul structure juridictionnelle bu composé au juge ak de cassation waaye dafa war a nekk structure administrative boo xamante ni dafay war a soumettre ci loi notamment l' application euh, décision bi nga xamante ne justice jël na ko ci cadre Ousmane Sonko euh, dañ ko war a rétablir ci mu gën a gaawee loolee nag ci turu loi ak euh, séparation des pouvoirs Thierno Bocoum moo postulé bi de xibaa rax si doole di wax sénégalais yëpp nag juma bu barak jamono jooju nag kii di Amadou Ba moom it daal dina dalooti rek ci kaw Ousmane Sonko neen une campagne de nauséabonde waaye tamit nu mu ni ko jëm rek ci pôle avocat Ousmane Sonko loole nag dina nekk loo xamante ne falsifié ay signature yoo xamante ni bi nga ne fësal na ko mi ngi daal di ordonné mi ngi joxe nag ab procuration boo xamante ne daal buñ ko xoolee bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo ko daal di signé ci place même mention loolee nag nekk loo xamante ni dafa jiggi dayoo mu mel ne nag mbir la diggante Juan Branco ab signature boo xamante ne dafa am keneen ku ko signé ah, ci turu kii di Juan Branco di ab xibaar ba tey jii rek des ci mbirum Ousmane Sonko mu nekk loo xamante ñu bari nag ñu ngi koy ñaaw lu ñaawlu doxalinu DGE ñu waroon na nag euh, jëli récupérer ficier de parrainage bi waaye ba tey dañoo lànk ne duñ ko jox Ousmane Sonko lu nu mel nag doon na loo xamante ni askanu Sénégal ak ñu féetee ci opposition ñu ngi koy ñaawlu bu baax baax jàpp na rek du leen nguur gi lépp rek lu dal Ousmane Sonko ak ñi mu àndal nguur gi moo fa jaar jamono ji daal fàqatal galgal Ousmane Sonko ba du fekkee élection yi loole nag moo nekk li nga xamante ni loole la ñu daal di bëgg